asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit internet ñu seetaan à travers suñu TV ah, tey ñu ngi fii ci Sorano ngeen ànd ceeg sista Adja Saliou nee leen tey anniversaire bu nar a neex anniversaire ba nga xamante ne tubaarkàlla troisième édition la ñu wax troisième édition du ay caaxaan ñu nar cee ànd ak ndaanaan bu mag ndaanaan ba nga xamante ne marqué na empreinte am ci musique sénégalaise ndaanaan ba nga xamante ne ràññee nañ ko loolu lool ci mim réew muy dem gise gise maabo ay dañuy daal di ànd ak ah, sama caméraman bi rek daal di xool li am ci biir tubaarkàlla ba tey ah man lay doon man xale déranger man Adja Saliou damay dem dugg ba ci biir rek ñëw ba ci bunt bi tasante sama maman bu jong ma tubaarkaal ma bëggoon kaa laaj rek te teewaayam tey ci bis bi maman nuyu naa la. waaw fay naa la sama doom. maman maa yëg ne da ngaa jong ma te sañse nga lool lool lool sax. nii nii nii nii trop demb rek xam bi mooy troisième édition am muy troisième anniversaire am nga xam ne kon demb rek moom kon fii du yomb tey incha allah fii rek yomb du ko def. ba tey ñoo ko déggantoo dégg nga suñu maman bi lu mu wax nee naa leen fii tey dafa nar a wàcc ba zéro degré tubaarkàlla nañ xuus jàll dinaa naa la ci biir moo dàq ba tey li fii li nekk fii nii nañ xuus jàll xool li ci biir tubaarkàlla ba ah, maa ngi nii ci buntu bi te santeeg sama ay jongama yo nga xamante ne dañoo sañse lool lool lool sax ma bëggoon leen dégg sama micro rek ah ñu wax ma seen ci bés bi soxna si nuyu naa la. fay lañ la. Hmm, ñu bëggoon xam sa teewaay si bés bi. waaw demb moom dafa dafa nekk suñu nit. ñun moom dañoo yàgg ñëw ci anniversaire am te bu mu commencé ba léegi premier édition ba léegi à chaque fois bu anniversaire dañuy ñëw te day neex Demba moom suñu Demba la c'est la c'est les Parcelles Assainies ah. waaw ñoo ko déggandoo waa Parcelles yow sama tata bi dafa jongama ba tey am ah, ma ko bëgg a dénk sama mu daal may wax xeetu baax baaxam ak teewaayam ci bés bi maa nuy naa maa ngi lay fay bu baax mbaa yëg nga ne da sañse ah bon jàppale Demba dama bëggoon xam ne ko mu tuddee sañse bon sañse bi <laughs> xaw ma ko laa ko tuddee mais dañu ñëw tey représenter le ministre Amadou Ba le ministre de l'économie des finances et du plan le coordonnateur des Parcelles Assainies euh, Demba daf ko parrainer euh, tey anniversaire bi comme chaque année moom la koy parrainer mu yónni ñu rek ñu ñëw représenter ko mhm. waaw. merci beaucoup ñoo ko déggandoo gis nga de tey fii dafa nar a wàcc ba zéro laa leen wax nañ taxaw xool tubaarkàlla xeetu baax baax yëpp a ngi ñëw ah macha allah waa déggal kii def benn loo xam nii jongama ma tamit ah salaamaaleykum salaamaaleykum nuyu naa la. ça va maa ngi lay fay. mbaa yëg ne da ngaa sañse. ah nga loolu loolu sax. merci beaucoup merci. ñu bëggoon xam sa taxawaay ci bis bi. ah xanaa ñëw kii rek fekkee si anniversaire bi. ah Demba suñu mbokk la. mbokk déggal loolu nee naa leen tey waaw waa gise maam lu ñoo nar a wàccee fii nee naa leen képp kuy mbokku Demba xarit àndandoo soppi te ñëpp a ngi fii tubaarkàlla ah, ma wax la ne que da ngaa sañse loolu loolu sax nee na mbokkam la waaye yow noo dundee loolu tey bis bi noo ko dundee. Ah, xanaa neex rek neex na ñëw rek fekkee si seetaan si ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ah, di kontaan di ko kontaanee bu baax a baax man damaa yàkkamtee dugg ci biir dëgg fa neex yàlla damaa dañ kumpa lool lool lool bëgg naa xam luy xew ci biir ah xale dañ ay waay bu fi daanoo continué ba tey ah, nee naa leen ñu ngi ci bunt ba léegi dëggaguñu kenn ma taxaw ak nii nag moom dem ak ñoo bokk ndey ak bàyyi muy àll gise ma bëggoon ko laaj teewaayam ci bis bi ak naka la gisee bis bi nuyu naa la àll gise maa ngi lay fay noo gisee bis bi tey bis bi xanaa comme ni ko ñëpp gisee rek dem ba nekk xale bi nga xamante ne moom ñun duñ ko kii dañ xam fi mu yegg moom xam na ne moom bettuñu Demba dafa nekk ñun. macha allah waaw. ba tey ah ba tey moom la nee na moom mënul wax mais tey Demba jaral na ko pour mu wax ah, jaral na ko lu ëpp loolu ñoo bokk ndey ak baay ba tey Demba noo gisee Demba ak lan nga lan nga koy lan nga koy wax lan nga koy encouragé. xanaa di ko encouragé mu gën a góorgóorlu xam ne fi mu teg tànkam foofu la nekk na ku yaru ku baax ku Demba sans France sans façon la amul benn problème. waaw. ñu koy defal bu baax a baax di ko kontaanee ba tey mook dem ñoo bokk ndey ak baay ah nee naa leen fii ñëpp a fi nekk xarit mbokk soppe àndandoo ñoom ñëpp ñu ngi ci biir bis bi tubaarkàlla ñii nag ay artistes lañ ñii ñooy ay xaritu démb gisee ah nee naa leen ñoom sax ñoo xew la nag jarul ma leen laaj dara dama leen dégg sama micro rek ñu daal di wax ak man salaamaaleykum nuyu naa la. salaam fay naa la soxna si. noo tudd. man maa ngi tudd Naar Fall. naar faar yow daa mel ni bés bi doo ci caaya grand bu nga ci de. waaw ma la neexee sax ne la ñor laa ndax maa ngi téye caaya ji. ëpp naa. dëgg neexul. nuyu naa la sëñ bi. maa ngi lay siyaar bu baax. noo tudd. Jibril borom Tilala Couture. ah ëpp na borom Tilala Couture yi nga déggandoo loolu de fu ngeen bàyyeekoo yéen. waaw ñu ngi bàyyeekoo Parcelles Assainies. Hmm. xam nga olof day faral di wax naan. ginaar bu ne daggañ ca ngunu ga rek daa fekk mu am wàll ca ngootoog ga te ku yuute neex a jàngal ni ñuy tiflee te ku gis dem ba gisee xam ne xale bi day dem waaw eh, eh, man te fa ko dagg fii yéen <laughs> loolu daal neex na daal xam nga xam nga rek ndeysaan ku sa néegu ndey taal reer xam nga ne doom nga duñu xaaraani ñun Parcelles Assainies su ma neexee sax ma ne fukki penc yeeg ñaari suñu néegu ndey daa taal reer muy dem ba gisee ku ko xool xam ne ndaanaan la gor la garmi la rawatina Pa Wende mi nga xamante ne moom sunu doom yaay la. kon tey ñoom bu ñu weet bu ñu wootee ñun mënuñoo ñàkk bañ a teew barki Serigne saaliw lu yëngu lu nekk rek la ko yëngal ak ëpp doole. macha allah waaw dëgg neexul. waaye yaa dégg sa doom ne li mu wax noonu ma la nga tëj rek. waaw moom li mu wax dama naan dëgg la ndax sotti ceeg def ci la. li mu wax dëgg la ndax ñun dañ di ay doomi géwél duñ doomi bambara ki naati golo <laughs> te Demba Gisee man maa nga rakam ñooy ànd ji bi gisee. waaye dafa nekk grand boo xamante ne si nii baax na yaatu xam nga xàmmewul euh, ne non sama rakk nga wala du genre donc kon bu wootee dama naan ñun dañoo war a ñëw ndax ay doomu Parcelles lañ waaw loolu war a suñu teewaay ak Paa Boy ne mi nga xamante ni maanaam fi ñu génnee daal moom la. lu nu sañse daal moo fa jaar. borom sañse yu baax yi gis naa la. moo ngi nii lépp moo fi jaar jox ñu carte defal ñu lépp dañu ñëw leen nag waaw xanaa ñu daal di ñëw rek jëm dëgg neexul daal xool bis dëgg la ah, ñu ngi fii biir soraano nee naa leen troisième édition la ñu wax anniversaire Demba gisee ah, mu génnee album bam tubaarkàlla quinzième étage da ko daal di tuppee boobu album bu loolu yëpp fi lay xewee tey ci biir Sorano ñu ngi ci buntu ba tey ah dañuy continuer rek daal di xool gaa yi lañ sañ seen xeetu baax baax ak nit ku nekk luy sa taxawaay si bés bi tey jii ba tey nee naa leen maa ngi ci bunt bi dugaguma ba léegi ma tasante fekk benn a euh, alaaji sax laay wax ah bëgg ko laaj turam ak teewaayam si bés bi sëñ bi nuyu naa la. waaw fay naa la soxna si. noo tudd ak lan mooy sa teewaay ci bés bi. waaw maa ngi tudd Modou Guissé xanaa ñëw soutenir sama frère. dëgg neexul ci mbokk la bokk dañ naa ko bàyyi mu daal di continuer rek da nga leen di xool sax xam ne ñoom ñoo niroo tubaarkàlla. non maa dàq dem ma nag soxna si. <laughs> waaw nanguwul le nanguwul ah ba. quarantaine yore naa quarantaine ay euh, deux ans. di ci fubal nawetaan di ci def lépp ci quarantaine boobu ama quarantaine dëgg la lu toll ni tey anniversaire Demba Guissé lan nga ko mën a wax. ah anniversaire Demba Guissé xanaa di ko souhaiter joyeux anniversaire rek ndax bés bi la judd sax d'ailleurs beneen bi mooy bés bi moo ma jëlee Joal ba fii ma ñëw pour teewee si ko. comprendre nga voilà te sama xarit la sama gaañ la. kon il fallait ma ñëw jàppale ko si anniversaire am tamit pousser ko. supporté ko si adversaire am waaw man maay fan si numéro 1 bu demb nag. <laughs> la ah nee na la jóge ba fii nee naa leen lu yëngal la ko yëngal moo ko ëpp doole dégg nga fi mu jógee ak fii xam nga ne loolu ay kilomètres la mais mbokk dafa neex nga xewle rek say mbokk daal di ñëw daal di taxaw loolu rek sag la tubaarkaal la ah ba tey dañuy daal di continuer ñu ngi ci bunt bi. ok Adja jàng lay jaajëfal ba baax sista macha allah li nga présenté neex na dañuy daal di continuer rek ba léegi comme ni mu ko waxee ñoo ngi fii ci théâtre national Daniel borom 15 étage ah génne album bees sax tuddee ko 15e étage woote nag nit ñi daal di koy wuy si dañuy continuer rek laa la ba léegi daal di tàll suñu micro ay invité am jox leen ko laaj leen lan la ñu xalaat ci bisu Demba Guissé bi ak lan mooy seen ci bés bi. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Aram Ngom madame Guissé. Aram Ngom madame Guissé. waaw. Aram lan ma waral sa teewaay tey ci bés bi. ah maa ba yee xew la Demba Guissé sama jëkkër ju baax ci moo xew la rek tey du yomb. ah Demba Guissé sa jëkkër la. ah cher boobu nga xam ne dama bëgg ci xolam ma bëgg ko moo xew la du yomb. kon daal yaakaar nga ne tey Demba Guissé seen quinzième étage bi mu wax nar na koo wàccee fii tey. daay laa dañ ko yóbbu ba seizième sax wàccee ëpp na maa ngi lay jaajëfal Aram. <laughs> Eh, merci beaucoup. dañuy continuer rek ba léegi ah ngi fii ci théâtre national dañoo soog naa di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy ay invité Demba Guissé soxna si nuy naa. fay naa la sëñ soxna si. soxna si tur bi naka la. Faamata Guissé. a Gise dafa mel ni yow dem ba Gise nga wala mbokkam nga. rakkam laa kay. Ah, mbokku Demba Gise nga. Eh, lan moo waral sa teewaay tey ci bis bi. li ko waral mooy Demba daa baax rek yëg ñu yëg daal la daal moo taxit ñu bàyyi lépp ñëw defar ba mu baax. kon daal tey gise maaba nar nañu wàcce fii. yii ñun ay maaba lañu piir gise ñi nammuñu dara gisoo ñu xanaa. Faamata ñu ngi lay jaajëfal la nga sañ sa nag mbaa ko. non xeebu ma ko de. bu ko mas a xeeb. déedéet. sëñ bi nuyu naa la. ziar naa la soxna si. Eh, sëñ bi tur bi naka la. Serigne Modou Xabane Fall. Serigne Modou Xabane Fall lan moo waral sa teewaay tey ci bés bi. waaw man euh, tout d'abord damay euh, félicité Demba di koy euh, souhaiter joyeux anniversaire Demba sama dëkkandoo la. vraiment man ça fait des années yoo xam ne génnu ma mais tey moom il fallait ma def teew rek parce que nekk na xale boo xam ne dafa yaru respecté ñu jox ñu cër moo tax sama def sama présence nii tey daal. kon daal tey naata yomb comme ça fait des années génnoo tey dem ba génnee la mbaa di nga yëngu. ah gisoo ma xanaa ak fi ma fël nii bala turquoise bi def. waaw yow xool ma rek xool xew ba suuf. ma naa waaw jëlal sama nijaay kaw ba suuf nee jëlal sa nijaay waay gis <laughs> daal di continuer rek ba léegi daal di xool ñeneen ñi nga xamante ne dem ba gisee lañu daal leen taalal suñu so bi nuyu naa la. waaw ah, maa ngi lay si. sëñ bi tur bi naka la. Ah, Pape Sadio. Pape Sadio lan moo waral sa teewaay tey ci bés bi. Ah, ñëw ndax Demba Guissé nekk xale bu baax xale bu yaru ñu bokk benn koñ franchement mu yëg ñu respecté ñu lu nu xewle mu ñëw. Euh, moo tax euh, bu mu xewlee si bis bi ah, ñu tamit ñu dagg suñu yite yëpp rek ñëw rek jàppale ko si bis bi. nga dagg sa yite daal ñëw jàppale ko mbaa xeeboo li nga sañ sa. non xeebu ma ko. bu ko a xeeb defal ko xam nga rek gis nga loolu ah. gis nga ko bële bi ah. yaa ngi gis la nga ah, si. bëgg nañu suufee salle bi boo leen gisee lëndëm yi bu ñu ko xëccee dem ba gis yegg si téléphone portable yi ngay tàkk bu dee ba pare ngay téléphone portable tàkk boo téléphone portable yaa ñu ngi nii ak borom bés bu ci boppam borom troisième édition la ñu wax anniversaire la wax borom quinzième étage ma bàyyi ko mu nuyu waa Sénégal wax wax ay moom waaw asalaamaaleykum sunu TV ma leen di kontaane baax a baax naan leen seen liggéey rafet na te kontaan naa ci yéen maa ngi duggaat léegi léegi ñu jàkkaarloo waaw ñoo ko gisandoo image en en exclusivité la waaye doy waar yow daal ku la doon jot ñu xaar lépp ah ñoo ko gisandoo Demba Ngoog def palmaanam tey ah, ñu ngi ah le grand animateur borom i rajo ah muy euh, DJ Padros nuyu naa la. maa ngi lay fay Adja euh, Adja Live View di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoom di waa sunu euh, TV sunu TV ñu ngi di saa bu baax di kontaan di kontaan ci yow di kontaan ci sama doom yi nekk ci caméra bi mooy DJ Ama Ama Ndaanaan koo xam ne nit ku spécial mën li liggéeyam nangu liggéey li ëpp solo ci àdduna mooy nga nekk xale ba pare am jom te li nekk ci moom moo ci yow. maa xeeboon di nga def sañ-sañ nga de macha allah li daal bëgg naa ko waaw waaw waaw du ma ko xeeb du ma macha allah sa taxawaay ci bis bi tey lan la. ñëw dooleel Demba Guissé ñëw accompagner ko ci événement bi nga xamee moom moo di euh, troisième édition anniversaire am euh, mu nekk loo xamee du guléet waaye bii dafa spécial parce que li tax mu spécial mooy dem Demba Guissé musul génne album. bi muy génne album di troisième édition il faut ñu ñëw fekk si ko. il faut ñu ñëw setan si ko parce que Demba Guissé artiste la boo xamante ni dafa spécial ci carrière ci ci ci ci artistes yi nekk si Sénégal. barke yoon ci dafa spécial jikko comportement mën a way mën li muy def macha allah euh, nit ku polyvalent selon ci li muy def aussi macha allah ku déglu Demba da ngay xam ne ndaanaan la. waaw mooy DJ Padros ñu koy jaajëfal bu baax a baax nee leen sedda yi benn la ah koo jox sa micro benn kàddu bi ngay dégg mais lan nga mën a wax Demba aussi quand même. Euh, li ma koy wax mooy góor góorlu fi mu nekkoon mu yokk li ma koy wax mooy bu mu lâché wu benn yoon euh, ginnaaw lâché wul wul boobu ba léegi gëm naan sax du lâché wu parce que pendant nga nekk ci milieu bi mosoo génn album nit ñi di la bégee. nga génn album nit yi gën a ci yow gën a lu yokk sa liggéey sur le plan national dañu koy bëggee Sénégal dañu ko bëgg boo demee extérieur da nga naan est-ce que Demba gisee moom am na li fii te boo demee Paris boo demee France feneen ak feneen ak feneen xam nañu kan mooy Demba Guissé waaye. man Padros maa ngi seetaan suñu TV suñu TV mooy télé bu mag bi nga xam ne lépp luy actualité yi lépp luy culture lépp luy société c'est-à-dire bàyyiwuñu dara lépp loo bëgg rek ñëwal ci suñu TV nga seetaan ko fi suñu TV mooy suñu télé sama doom moo ko moom DJ Ama daanaan nag mooy borom télé daanaan bàyyi leen ko xel très bientôt dina gën a leer waaw ba tey maa ngi taxaw ak sama góor sama càmmiñ Fadel Mbaye ah. doomu ndeyu Demba Guissé Fadel nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay soxna si sama jigéen sama xarit di am mbégte bu baax ak contentement ci yow. gëjoon nañ ko gis mais Demba Guissé gëm naa ne moo ko génnee tey Fadel Mbaye sa taxawaay tey ci bés bi laa bëggoon xam nga ñeme ma ci tuut waaye mbaa xeeboo li nga sol. waaw nii laa dafay na de. xam nga bis bi du ma ko cof. dama ko naan nikk teew ko ndax Demba day sama frère sama xarit mën a jàpp ci samay mbir baax loolu ci man waaw bisam nag dama cee war a taxaw taxawaay bi war moo tax tey ma def nii tubaarkaala ñëw jàppale fi waaw ñoo koy déggandoo doo mën ay dem ba gisee ah nee naa leen nii rek la fay demee nit ku nekk sa taxawaay ci bés bi dinañ bëgg a xam daal di koy partager ak yéen ba tax na dama koy bàyyi mu daal di yéegi ci biir ah waaw tey nag ci biir du yomb li des ci biir lañ koy àggalee bu ko defee dina mel ni ba golo ga naanee beer bu leen dara metti yéen waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la kontaane lu bëree bëri

Demba dafa nekk artiste bu discipliné artiste bu bari talent donc ñun bu ñu ko woowee suñuy émission de télévision day ñëw donc bu ñu woowee ñu nit dañu war a ñëw donc loolu la. bari na talent xam na li muy def bëgg na li muy def respecté na nit ñi. papa ñu lay jaajëfal baax baax duñ la duñ la téye dañ lay bàyyi nga daal di yegg ci biir kon. Ah, ma gisanteeg sama papa ji nga xamante ni tubaarkàlla ah, wàllum théâtre moom ah, dañ ko cee ràññee bu baax a baax a baax papa Sopé nuyu naa ma lay ziar macha allah ma lay ziar bu a baax. maa ngi delloo ziar bu baax a baax papa ma lay laaj sa teewaay tey ci bés waaw xam nga Demba. lu yàgg lu nekk dëgg la eh, lu dagg lu nekk morom lay fekki te moom bu woote woon Kulikoro sax ñu dox fekk ko am na ci ñun respect am na ci ñun cër am na ci ñun cofeel ak respect boo xamante ko sax natt fu mu ñu gis jox ñu cër boobu loolu moo waral pour wax la la la la. Euh, lii def nar lii nar def bees mooy suñu série bu bees bi moom def ci joué donc loolu moo lay wan ne am na benn colère bu dox suñu diggante ak moom moom nag mu xale bu am fula am fayda am respect si doomu war a ñëw ko vraiment loolu xew macha allah sedda yi benn la nee naa leen troisième édition du ay fo ba tax na dama koy laaj moom lan la mën a wax Demba lu mu ko mën a encouragé ci carrière am waaw xanaa mu gën a gën a jàpp parce que li mu def patience la boo gisee mu tuddee lii quinzième étage donc y a quinze ans de cela mu nekkoon xale bu ndaw mu nekk si ba tey ji expérience boobu daf ko doon utiliser pour l'avenir maintenant convaincre le public sénégalais li des mooy convaincre le public à l'extérieur avec une très bonne organisation je pense Demba Ira Louye incha allah yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko et puis allah. xeeboo nga sol mbaa xeeboo lim sol. dem dem ba bu baax a baax papa ñu ngi lay jaajëfal. damay merci beaucoup. merci. nuyu lu baax a baax mbaa xeeboo li nga sol. non non damaa ñëw rek. relax rek. waa def ba mu baax rek. noo tudd. man la Fanta Mbaye chéri Thiat Seck aaw buuru këram. waaw loolu defe naa leer na ah sa teewaay ci bés bi tata. ah waaw damaa ñëw ànd ak sama géer soxna Ndour borom Chine Ndour Waly Mbégane Ndour di jigéenu Demba Gisee mu paree ne ko mu maree ne ko tubarkalla macha allah ma ñëw rek ànd ak xale yi ñu ngi nii waaye établissement Bokk Jom ñëw wuy si Demba Gisee def ko baax dëgg neexul. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ok ñoo far. waaw ñoo ko déggandoo ah. salaamaaleykum tonton. nuyu naa la. fay naa la bu baax. Zal Seck. ah bés bi tonton. waaw bés bi bés bi dafa wuyoo ndax Demba nekk na ko xamante ne ni artiste bu kenn lam-lamewul la yaru na respecté na aar te xam na li muy def donc euh, bés bi dafa nuyu boromam rek. jaajëf bu baax a baax tonton. merci beaucoup Marie. salaamaaleykum. naa mbaa xewal li nga sol. sañse nga loolu macha allah. noo tudd. sa teewaay si bés bi. sa teewaay ci bés bi. waaw Demba sama doom la sama xarit la. wan leen ngor man marraine la ma gën ma dem dem di nit baax sama xarit sama frère baax loolu ma taxaw ak kan jàll jéeri ah waykat bu mag boobu noonu noonu nga xamante ni tubaarkàlla lu mu woy day daal di neex daj ci xol mbaa xëy lim def moom dafa xaw a aare nga fi mu génnee de. ah waaw simple rek. Amina Ba moo def lii waaw. macha allah ñu xam sa teewaay si bés bi. waaw mooy li ma wax rek dem ba sama frère la sama xarit la waral bu defee bésam man dama war a ñëw jàpp ci mu woo ma ñàkk maa woo ma dégg ko ñàkk koo dégg dama war a teew sama bés la raison pour laquelle euh, ma ma ma ma sol sumay daal rek daal di ñëw teewal ko waaw. macha allah ah, dégg ngeen li mu wax nee naa leen seeday benn la tey Sorano mi ngi wàcc ba zéro na ah sañ tey rafet na ah kan jàll jëri ma bàyyi la nga ci biir ñu ngi lay baax a baax. jërëjëf kontaan naa tey euh, moo tax ma ñëw seet si ko xam nga man moom bëriwuma sax lu may dem ci gaay yi. dëgg waaw man moom. li ngay léegi li ngay jëm bëreetul. Oh, <laughs> la donc nag xam nga. Uh-huh. tey jii bés bu dellu si dafa neex. donc ñu yëgal ma ko ma ne ko dinaa ñëw et puis ma tenir sama parole daal di ñëw. alors nga jógee récemment yow Sorano def fi macha allah lu kenn deful alors moom démb gisee bi muy ñëw fi loo ko digal yow u ko pensé. mais nit ki da ngay osé xam nga àddina bi da nga a dégg àddina bi ñun la papaay diw moo ko moom. mën nga dégg yaa amul waaw jeex na kon moom cëram da ngay jël kenn ëppalewu ko dara fii tey ji Sénégal rek moo am. saal bi ak saal bi am na ay musiciens yoo xam ne kenn xamul si wuñu fii Sénégal te saal yi feesal en Europe man na saal yi ay vingt fois donc li am solo mooy spectacle bi muy produire te moom mun na way il a de bons musiciens et puis yaru population bi ñëpp boo xoolee presse bi tey ñu ñëwee fi rek ça veut dire que ni nit ñi la quoi donc c' est boo xam ne xale la loxoom set na képp ku mu woo nga ñëw wuyu ko donc man je pense que nii lu rafet la quoi donc ñun ñëpp dañu war a ñëw jàppale ko. parce que nii la xale war a mën a bokk ak mag ñi mais père. léegi ci kaw seen bi moom may la ko. non déedéet ma ma dama la koy may foofu. non yow xam nga man sama papa ko lu ma neex laay def. dama la koy defal foofu mu dee da moo koy may pare. ku sa baay man baayam. doom ah. ja yaa <laughs> ko moom. ku sa maam man maamam. Ah. sët ba yaa ko moom. jaajëf. yàlla bali nañ ne Baba Gueye boo ko defee si moom tey. waaw merci beaucoup Baba. ah muy dalal ay gars. say xarit yi ñu ñoom maa ngi sa il faut Baba nga woy nga woy ñëpp. il faut parce que ko bëgg. waaw day si boo xëy na. am boo xëy na. Fatima boo xëy na. parce que ko bëgg. te lii ak sa mbawu coow. maa ngi ma jaay ma daal

ko ñaanal yàlla ndax dem ba xale bu yaru la amul benn problème wax dëgg yàlla di ñaanal rek yàlla jàppale ko ndax xale bu yaru xale bu toppatoo ay ndeyam toppatoo baayam toppatoo ay rakkaam ay tantaam am na jàmm am na salaam amul benn problème di ko ñaanal yàlla rek bu bëgg a yegg carrière am yàlla bu fa yàlla yeggee loolu rek laa bëgg a nga sol ah déedéet dama ko woyof rek yaay bari sañ-sañ lool lool lool loo ko mën a conseil tamit li ma koy conseil xanaa mu góorgóorlu rek amakat bi si yëpp jàpp ndax lii day jeex àddina amul solo bu bayee fan sa bopp am ak ñëpp jàpp bu bàyyi kenn am ak ñëpp jàpp ndax loolu mooy tax nga avancé loolu laa koy ñaanal yàlla yaay ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér ba tey ma yéenam ci yow ma yeggali ko jàmm ak salaam ñu ngi lay kontaane baax a baax di la jaajëfal maman amiin amiin amiin but li nga sol. ah dama ko oyofal rek. <laughs> macha allah yaa ñu bëggoon xam sa teewaay si bis bi. waa Demba daf di baax koo xam ne heure buy def anniversaire boole ñu ci ah, boole ma ci ñi nga xam ne ñoom lañ invité aussi ma rafetlu ko trop moo waral sama teewaay tey. dëgg la lan nga mën a wax Demba loo ko mën a encouragé tey loo ko mën a wax tey. waa di ko di courage rek ndax liggéeyam rafet na mën la ni muy def ka macha allah dañ koy ñaanal suñu borom gën a sottal ay mbiram waaw. jërëjëf waaw maa ngi ci euh, fin d'album laa nekk bientôt léegi album bi ci kanam. merci beaucoup gisee ah, nga xamante ne moom mooy ah, doomu ndeyu Demba Guissé noo gisee tey sa bisu anniversaire rakk bi. sama rakk Demba sama rakk la moo topp ci man. dëgg la donc damaa kontaan ci moom damaa kontaan ci moom baax baax mu nekk nit ku xale mu nekk xale nekk xale bu yaru xale bu bëgg àdduna xale bu bëgg li muy def donc loolu moo tax man ma ñëw. voilà ñoo ko déggandoo sere bi benn la loo mën a conseil tey Demba loo ko mën a wax tey ci bisam bii tey jii. ah loo ko mën a conseillé tey. lu ma mu góorgóorlu rek mu góorgóorlu rek ndax aar dafa métti. surtout Sénégal nii aar mu góorgóorlu rek waaw. waaw buuxante interview bi nga defoon nga ne daa benn artiste bu la ñëw nuyu la loolu noo ko gisee benn. du ma wax yooyu nag tey bi su mbégte la da nga ne ambiance. Ah, ko ma wax yooyu. du ma wax yooyu après ñu ngi lay jaajëfal ok merci. li lañ fi jëlee woon tey andil leen ko defe naa ni kontaan ngeen trop trop trop ngeen ànd ceeg Adja Saliou ak sama man bu ñaawul bii di DJ Ama maa ngi ceeg tamit nday soxna sama xarit boobu noonu si ta soxna tubaarkaala li nañ leen andiloon tey ah, di leen wax dig daje ci beneen événement incha allah.